jërëjëf jërëjëf maa ngi leen di nuyu di leen euh, sant di leen gërëm ci seen teewaay ci ndaje technique bi nga xam ne dañu ko am tey mais ngeen may ma ma jiital kilifa yi fi teew te lii ñu tax a jóg muy élection présidentielle tax ñoom ñëpp ñu déplacé wu fii ci jiital président Moustapha Niass di ko sant di ko gërëm di doomu Sénégal bu ñëpp naw ndax ay jaar-jaaram ak jalooreem ci biir Sénégal merci monsieur le président Moustapha may nuyu soxna Aminta Meng Ndiaye monsieur le président de l'assemblée j'ai fait une entorse au protocole xam naa ni mag yow ñoo bokk jikko di ko nangu Aminta day sunu mag di kilifa ci réew mi bi ñëpp ràññee Aminta Mbengue ak Moustapha séq président Macky Sall ci biir benn Bokk Yaakaar ànd ak moom ci at yi yëpp Aminta jërëjëf gàcce ngalaama may nuyu président assemblée nationale Amadou Mame Diop un homme engagé discret et très déterminé merci aussi pour ta présence may nuyu tous les responsables de Benno Bokk Yaakaar ici présents ñoom ñëpp di ay kilifa ma doon wax démb ci benn ndaje bu ma demoon le privilège que j'ai aujourd'hui en tant que candidat de benn Bokk Yaakaar c'est d'être soutenu et appuyé par toutes ces personnalités te ñoom ñëpp ku ci nekk xam naa ni du ay caaxaan wala ay waxi neen mooy tax nga engagé wu merci à la coalition Benno Bokk Yaakaar bàyyiwuma ci kenn président Macky Sall ñu yoral ko nuyoo mais surtout yoral ko sant ak ngërëm car buñ dee wax Benno Bokk Yaakaar ba tey jii engagement am ak conviction am ci on travaille ensemble on gagne ensemble on gouverne ensemble président Macky Sall doxee na ko wane na ko wane na ni Sénégal ñun ñëpp dañoo war a doon dañoo war a bokk ndey bokk baay et que politique du uniquement ay coups yu ñuy joxante nañu ànd pour une circonstance particulière bu sottee ku nekk dem sa yoon. c'est une véritable leçon que le président Macky Sall a eu à nous donner travers benn Bokk Yaakaar qui est aujourd'hui la coalition bi nga xam ni. mën nañu wax fi mu yegg ak fi mu toll ak at yi mu am amul beneen coalition bu ko mës a am ci histoire Sénégal te ñu xam ko ça si lié à son mais aussi à ses convictions mbir yi dañ koy bokk loolu it ñun ci la ñuy sukkandiku loolu ci lañuy sukkandiku pour li nga xam ni tàmbali nañ ko liggéey ci sori ci ñuy ñu mën cee bay sunu waar te ni ma ko waxee léegi responsable yi nga xam ne ñoom ñoo toog fii ku ci nekk ci ñoom mën nga te yor nga sa biir njaboot au sens strict du terme koo xamante ni lii nga xam ni joxoon nañ joxoon nañ ma ko tey ci sa biir njaboot am nga ko ñoom ñëpp ñu déggal leen nangul leen moo taxit je vous réaffirme mon engagement et ma conviction pour que loolu dara du ci wàññeeku dara du ci wàññeeku alakuli alin dinañu xeex pour yokk ko ndax ku yokkul da nga wàññi kon incha allah benn Bokk Yaakaar mi ngi fi depuis plusieurs années on souhaite encore Et on va se battre pour ça, on va se donner les moyens pour ça, parce que j'ai l'intime conviction ñi nekk fii ku ñu nekk sa ginnaaw ànd ak yow waroo am sikki sàkk ni da ngay gagner élection. ñu jublu nag ci comité électoral mais li ma doon wax léegi importance am dafa war a jàngal assistance bi notamment à la presse. ni Benno Bokk Yaakaar di fonctionner boobu ba tey xam ngeen ni kuy jëm élection di nga am directoire de campagne booy organiser ñun nag sunu directoire de campagne on souhaite que ça soit inclusif yomb na lool parce que responsable yi fi nekk yi yëpp koo ci tànn loo ko mënti jox mën na koo def la nga war a def sax mu defal la ko am nañu xam-xam boobu am nañu expérience bi am nañu moyen yooyu mais ni bennoo bindoo ak li ñu président jàngal mooy lu nekk waxtaan ko ñu am organisation boo xam ne teg nañ ko pour jëm ci élection bi pare na ñu defoon benn séminaire mais xam ngeen ni séminaire ñëpp duñ ci nekk benn groupe la woon mu nekkoon ci set bi xam naa ni moor na ci ñëwaat léegi ñu def séminaire pour am lu ñu proposé président Macky Sall rafetlu ko dëgg neex yàlla man rafetlu naa ko mais dañoo nekk ci politique yu ñi fi nekk teew ñëpp yor ay parti wala ay coalition kon dafay baax balaa nga ciy def lenn nga ne leen ñun kat mandat bii ngeen ñu joxoon lii lañ ci def xam nga bu la neexee nekk candidat rek taxaw ne bon Mor Ngom dénk naa la nangam bu subaa nga ne wala diw dénk naa la nangam du loolu moom mooy defar liggéey surtout boo yoree coalition boo xamante ni ni ma ko waxee léegi kilifa yi fi nekk ñu ngi ci biir. bi ñu paree ci loolu ba juboo ci dañ ko waroon a présenter maintenant à tous les responsables de la coalition Benno laaj leen ñoom luñ ci xalaat. ils l'ont fait am nañ ci sax léegi ay suggestions yoo xamante ni biñ ko gisee rafet na jàpp nañ ni. lu war a gën a mën a baaxal document bi ñu def la te incha allah dinañ ko ci intégré mu des ñi ko war a animé xam nga liggéey li ci am solo moom mooy sa volonté sa volonté yow moo tax tey li ñuy li ñu fi andi mooy pré présenté leen ko et am une méthode novatrice mooy ku nekk dañ lay wax na nga tànn fi nga bëgg a dem ni nga bëgg liggéey ñu ñëpp xamante nañu xam nañu à peu près ku nekk fi ñu jàpp ni moom moo gën mais li gën a rafet li gën a jaadu mooy ñu laaj la ko kooku moor dina ci ñëwaat léegi buñ ci paree vendredi bii di ñëw bu ci yàlla àndee ndax dafa am ay réunion hebdomadaire yu secrétariat Benno di def tous les vendredis président Moustapha Niass di ko présider buñ ci yeggee muy àjjuma bii di ñëw dinañu wax exactement ñu yëf yi bindoo bu boobaa nag on entre en jeu pour fair les arbitrages équilibré parce que bu ñu gisee ni ñëpp ci benn pôle la ñu bindee jublu ñu fexe jële foofu ay nit yóbbu leen ci beneen pôle. loolu gën baa tardé danañ ko def samedi après on va faire maintenant un séminaire avec tout le Benno notamment le le le la la la la la conférence des leaders. ñoom ñëpp élargi kooku gën baa tardé dinañ ko def tout juste après le congrès d'investiture de Benno buñ ko defee bu boobaa ku nekk dinga xam cër bi nga ci am ak ñi nga bokkal cër bi ak liggéey bi nga xam ni dinañ la ko sant nga def ko Maintenant, d'ici là, d'ici là, au plus tard, le 10 janvier bii di ñëw bëgg nañu dans toutes les communes communes yëpp monter seen comité électoraux parce que élection am na li nga xam ni day nekk xëy na au sommet bu ñu ko mënee tuddee sommet waaye liggéey bi ça se fait sur le terrain parce que bennoo c'est un parti de masse. C'est un parti, c'est une coalition de masse la laa war a wax c'est une coalition boo xamante ni commune boo dugg mën na am ay sensibilités yu wuteeg commune bi mu taxalool noonu la bennoo bindoo noonu lay fonctionner boobu ba tey bu d'ici le 10 donc on va se donner les moyens avec euh, l'ensemble des organes de Benno mais parti yëpp ku ci nekk dans la semaine nga jublu ci defar sa comité électoral du ñàkk benn commune wala ñaari commune où il va y avoir des difficultés on le souhaite pas mais euh, booy def moom da ngay anticiper yooyu yëpp on prendra une semaine pour régler toutes ces questions mu mëne ñu bu ci yàlla àndee vers le 15 le 17 janvier xam naa ne ci la ñu war a def séminaire bi fekk lépp pare bu boobaa on va lancer de manière effective et de manière déterminante le processus devant nous mener à l'élection du 25 février inch'Allah loolu mooy élément yi ma bëggoon a porter à votre connaissance ma leen di sant di leen gërëm di leen xamal ni les préoccupations que vous avez globalement yëpp bu parewul it avancé nañ ci li nga xam ni dina dem ci élection li ci jiitu mooy programme on n'a pas de problème à ce niveau là am na loo xam ni ñu ngi ci ànd ak président Macky yàgg na liggéey nañ ko ba toll fii xam nañu yan jéego lañ ci war a dox pour trajectoire bi réew mi jël ñu mën ko accélérer lii nga xam ni tey jii jàpp nañ ni boor boobu la ñu war a gën a pousser muy tout ce qui concerne l'emploi des jeunes incha allah on va y de manière déterminée dans le cadre du programme que le pôle programme va prendre en charge et que nous allons mettre à votre disposition.